ah am ci satisfaction parce que lii dafa bokk ci promesse électorale yi maanaam li mu diglante woon ak électeurs yi euh, deux mois après mu woote dialogue euh, pour réforme ak modernisation de la justice dama koy rafetlu rafetlu aussi euh, ñi nga xam ne ñoo ñoo fi teew parce que bu ñu lay wax justice yow la man la Sénégal yëpp la ñu naan les justiciables voilà invité nañ ku ne secteur privé jigéen ñi ba ci détenu ancien détenu politique yi détenu yi d'une manière générale parce que ñoom mën nañoo wax ci condition d'incarcération donc voilà comprendre mu woon sax coow bu ñu naan lu tax ñu invité leen ñooñu koy boo buggee wax condition d'incarcération euh, voilà invité leen ñu wax la seen seen xalaat parce que loolu it dafa war a changer euh, man li ma ciy xaar mooy ay résolution yu forte parce que président de la république ci boppam moom mi woote jataay bi ancien détenu la ancien détenu politique la premier ministre am ancien détenu la aussi donc li nga xam ne moom la sénégalais yi bëggatu la gis mooy ñuy jël justice di ko xeexee ay opposants di di di wàññi euh, ay droit euh, ak yelleefu doomu adama yi ba ci yéen journalistes yi gis ngeen li tegu woon seen kaw ba ci activistes yi ñu ni mel ñoo ñëpp ñu ngi fi tooy euh, loolu it war nañu ko éviter waaye aussi ku ne am say obligation en tant que justiciable parce que nag voilà euh, du tere nit ñi nag aussi war a mën a respecter yoon ñoom it loolu ci day am day am solo. mais gis na volonté politique la réforme moom volonté politique ko am volonté politique bi li ko indi mooy li ma la wax sànq président bi ci boppam dafa souffrir <laughs> conséquence Euh, ñàkku indépendance su justice ak politisation de la justice moom ak premier ministre am Ousmane Sonko ñoom ñaar ñëpp ancien détenu politique lañ c'est la différence loolu mooy différence bi ña daan woote xay na xamuñu woon ni kaso mel <laughs> xamuñu woon nga toog ay weeri weer gisoo sa njaboot euh, te lépp ñu teg ko rek ci jaay la doole <laughs> voilà différence bi nag mooy ñii dañ leen a jaay doole ñu vivre ko xam lan la wala voilà euh, bëgg fexe loolu bañ amati bañ a mu changer parce que dama jàpp ne ci raison yi nga xam ne changement am na mooy ni sénégalais yi demee ba euh, vraiment wóolootuñu seen justice euh, bëgg ci ay changement loolu am na poids bu am solo ci ci ci ci résultat électoraux yi man lool laa loolu laa jàpp ah madame da nga defee ne kon euh, sénégalais yàkkamti woon noonu pour ñu changer justice bi ci priorité priorité yi la bokk <laughs> loolu kay mooy mooy li mooy li jiitu ah euh, laajee famille yu ancien détenu yi wala famille yi nga xam ne ñoo rey seen doom ci ay manifestation ñoom lii priorité la ci ñoom voilà du tere it yeneen priorité yi euh, gouvernement baa ngi ciy liggéey ci wàllu voilà campagne élect campagne agricole bi ñu jëm euh, ak kii voilà préparer voilà nawetal beeg yu ni mel mais lii ci priorité priorité yi la bokkoon ah surtout bu fekkee ne dañ laa tëj kaso ay weeri yi weer te teguñu ko ci dara kon sa fait partie des premières priorités des sénégalais loolu laa gëm.